Voilà, c'est bon. Voilà. ci commune la bokk donc euh, bu ñu waree tànn donc euh, il faut que aussi ñu seet dëkk boo xam ni am na ay dëkk yu bare yu ko wër donc dama gëm ni fii Kër Assane am na dëkk yu bare yu leen wër donc école bi euh, wër na ma ni dina fi am njëriñ te maa fi waxoon ni que dama bëgg tout tànk yi. donc teela a école teel a jàng parce que am na solo pour que ñoom ñu mën a nekk en compétition xale yi yëpp nekk Sénégal nekk sax bitim réew donc yaakaar naa loolu lu am solo la ñu am chance donc euh, partenaires yi indil ñu lii donc vraiment dañu leen ciy gërëm di leen sant. di am yaakaar ni en tout cas euh, population bi dina ci mën a profiter bu baax a baax. jàpp ne mën na doon jeexital ci mu jaar yaakaar naa am na solo parce que xale bi bu teelee jànkonte ak euh, donc euh, livre yi am naa yaakaar ni loolu mën na ko jàppale ci ci njàng ñun amuñu chance boobu mais suñu doom yi par exemple gis nañu ni ñoo ñu ëpp chance ci côté boobu donc parce que tout simplement teel nañoo donc dugg maternelle. yaakaar naa lu am solo la. Euh, am naa yaakaar ni fekk fii ak at euh, dina sotti incha allah maa ngi leen di kon euh, salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi suñu chef de village imam ak kilifa yi fi toog direct monsieur le directeur d'école di beral nuyoo suñu gan yi racine d'enfance maanaam reenu xale yi noonu la seen association tudd te Patricia nekk seen présidente ànd fi ak jëkkëram ak Emmanuel ñi nga xam ni ñoo fi teew tey euh, ñii yàlla dafa def sama xarit Baye Ibou xuma wax na ko sànq dañoo bokk euh, dëkk Kaolack xamante foofu boobu moom enseignant la mu jot fi dem Amérique ñëwaat yàlla boole ñu lool mu amoon xarit yi ñu commencé di tabax ay jardin d'enfants dale ko région de Tamba ñu def ko région de Fatick ñu ñëw région de Kaolack ren ñu waroon ñëw Kees ma war a tànn benn dëkk ci département Thiès ah nee na ñu mbéy ci sa weewu tànk loolu moo tax nag ñu tànn dëkki Kër Assane te yaakaar naa maa fi toogoon ni xale yii dama bëgg ñu jàng pour ñu mën a nekk en compétition xale yi nga xam ni moo xam ñi ngi Amérique moo xam ñi ngi Chine moo xam fépp ci àddina te loolu ci ndaw lay gën a neex boo demee ba jëm mag jàng bi dafay xaw a métti donc normal na xale yi mën a am maternelle boobu donc ñu teel a commencé jàng pour que ñu mën a nekk en compétition ak ñëpp. donc maa ngi encourager les futurs directeur de cette école maa ngi encourager jigéen yi aussi parce que seen doom yi la yéen ay yéen a leen di gën a jege parce que ñun dañuy dem béréb liggéeykaay ñu ci bare jot bi duñu ko am bon école bi ngeen toppatoo ko ngeen xam ni seen école la seen école doom yi la moo xam góor la moo xam jigéen parce que àddina bi fi mu jëm moo xam góor la moo xam jigéen ñëpp ñoo war a jàng. te sama commune wax naa leen ni bu ñu demee ba natt 2019 bëgg naa Sénégal bu ñuy natt ñun ñu bokk ci ñuy jiitu tey ñu ngi ci éducation suba am naa yaakaar ni infrastructure la ñuy wax gannaaw suba ñu wax santé ñuy wax ndox lépp li nga xam ne électricité ñi nga xam ne amuñu ko bokk na ci suñu projet pour suñu commune fanden lépp li nga xam ni war na fi ñëw ñu indi ko fi pour que nit ñi mën na li ñuy wax émergence am ko donc euh, chef de village maa ngi lay gërëm ci kàddu yu rafet yi di la wax ni ala kuliyaali liggéey bi ñu bëgg a def wër nañu ne suñu borom dinañ ci jàppale parce que suñu engagement dañu nii nit ñi ñoo tax ñu engage amul leneen lu ñu tax engage engagé donc bu fekkente ne ci nit ñi la jëm am naa yaakaar ni yàlla mën nañ ci jàppale bu baax a baax waa Racine d'enfance je vous remercie particulièrement pour ce que vous venez de faire dans ma commune, ma chère commune. C'est extrêmement important pour nous, parce que nous pensons que l'avenir de ce monde se, se bâtit au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation d'abord. Et vous, voulez, vous venez de faire preuve de votre engagement. Ce n'est pas parce que vous avez énormément d'argent, c'est parce que vous aimez l'autre, c'est parce que vous aimez les enfants que vous faites le sacrifice d'apporter. bon wax leen nii ñii bu ñu joxee bu ñu defee lii ce n'est pas parce que dañoo bari xaalis lool dañoo sopp xale yi dañoo sopp xale en général moo tax ñu def ko donc war na nañu xam ni du kii barele rek mooy joxe ñëpp ñoo war a joxe te lépp li nga li li ngay joxe dafa war a jóge sa xol loolu am na solo moom laa leen wax ci tubaab donc nous vous remercions sincèrement et vous rapporterez nos propos à tous ceux-là qui travaillent avec vous qui cotisent en direction des enfants du monde. Aujourd'hui, ce sont ceux du Sénégal, mais je suis sûr que vous ne vous en arrêterez pas là, vous irez dans le monde entier. Donc c'est une occasion heureuse pour nous, pour la commune de fanden pour le département de Thiès, mais nous disons encore que c'est le Sénégal émergent qui est en route aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que cela. parce que c'est l'éducation, c'est la santé, ce sont les infrastructures, c'est l'électrification. Donc c'est tout cela qui fera que euh, le Sénégal sera émergent, les gens auront l'accès à l'eau, à l'eau, de boisson, mais ils auront aussi accès à l'eau pour l'agriculture. Ça fait partie de nos très grands chantiers. Nous n'allons pas vous ennuyer avec nos, avons l'ambition en tout cas de faire de notre commune une des communes les, les, les plus avancées de, de, de, notre pays. Voilà, donc euh, j'en profite aussi pour saluer et féliciter mon ami le docteur Ndiaye, PCA du FONDAS, qui nous accompagne partout, qui est aussi un responsable du parti HS, très engagé. Ça aussi c'est important, votre présence nous va droit au cœur et nous vous en remercions sincèrement. Je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus pour assister à cette cérémonie. Et nous pensons, comme l'a dit Patrice, s'il plaît au bon Dieu, dans un an, nous nous retrouverons ici procéder à ce qu'on appelle l'inauguration. Et je suis sûr que tout le monde sera là. En tout cas, je vous remercie de votre aimable attention. D'accueillir cette huitième structure ici. Merci, monsieur le ministre, monsieur le maire. Merci, monsieur le chef de village, la communauté éducative et tous les représentants des comités euh, ici présents. Euh, votre nombre en, votre présence en nombre et en qualité euh, nous permet de mesurer l'importance que vous donnez à ces structures, effectivement, s'occuper des enfants, s'occuper des petits, euh, c'est notre futur. C'est le futur du Sénégal, c'est l'avenir du continent et c'est aussi l'avenir en fait du monde. Donc il faut s'occuper des enfants, il faut les former euh, le plus tôt possible. C'est effectivement euh, euh, Le chemin que nous faisons dans l'association, c'est effectivement les premiers pas des enfants vers l'école, entre 2 et 6 ans. Euh, donc, euh, je serai brève. Je ne vais pas rajouter au retard encore du retard. <laughs> Je vous remercie d'être là. Euh, je vous donne rendez-vous euh, dans quelques mois, on va dire au plus tard dans un an, euh, pour voir ériger cette structure et la voir fonctionner. Donc, longue vie au projet et merci de nous accueillir.